juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi xarit yu seetaan dal leen jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës ab nappkat laay atam toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom moo ko faat ca diwaanu Ndar dëkk bu naan njaw dun foofee nag waa dëkk ba mer ba futu gannaaw ba nu seetee ba gis néew ba euh, dañoo xamle rek ne bàyyi ma ba euh, bu nu ko tegee bët daañu leb aw fanam naam itam dañu koy aar ndax lañu gis mooy euh, lu ni mel mënatuñ ca dëkk kii Bekaay Cissé lay wuyoo gune la goo xam dañoo jàpp ne ak càggante da ca am jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng ak euh, wàllu wérgu yaram Awa Marie Coll Seck la mu xamle euh, moom mooy daal bu fekkee ne dafa am euh, ñoo xam ne ay fajkat lañ te dañoo daal di def naka sudul noonu ay daan mën na caa topp nag mi ngi ko yëkkati tey jii ci suba lu jëm itam ci wàllum aar askan wi jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di sàkku ci askan woowile ñu dugal seen loxo ci mbir mi mu itam ñaawlu daaw da Diallo li nga xam ne fi mu ne nii dafa xew maanaam dem ci bërëb bu ni liggéey ci wàllum xaalis nga taxaw fa def lu la neex yóbbu koppar ya loolee euh, la ni euh, warees na ko gën a xeex képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Médina Grand Dakar Grand Yoff wala pikin nga yor euh, dëkkuwaay amaguloo kayit wala ñu jox la daal loo xam ne day finde ni abal nañ la nga dëkk boo moytuwulee kayitu kër mën na caa topp kàddu gi nag ma nga tukkee wala dogal bi ma nga tukkee euh, ca présidence loolu nag li ci Dakar ak li ko wër rafetlu nañu li nu mel di ngeen am jàngat euh, biñ ci def mbokk yi mu ngoog li mooy bonk yi fi gën a fës ngeen tax lu ñu ñëw faram fàcce bisimilah xibaar yi dañ koy doore ak aw tiis nappkat bi ay atam toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mu daan yeewoo ca dëkk bu naan Ndiawdoune ca euh, région bu Ndar Géej kooku itam euh, dafa ñàkk bakkanam ka ko faat di bàyyi ma bii di hippopotame askan ba euh, yeewoo foofee ca Ndiawdoune mer ba futtu la ñu xamle mooy bu ñu tegee bët boo boobile bàyyi ma daañu leb aw fanam naam itam dañu koy aar lu ci mën ngir génne ab néewam moom sëriñ boobile sapeur pompier moom ak Habib defal ñu ci ab gëstu ñu teewlu ko. musaa Diop lay ci turam moom gaal gi la duggoon ngir dem napp yi waaye nag nii lañ ko ëndewaat eh, ci li nga xamante ni mooy tefes gi mu génn àdduna moom nag lii di hippopotame bi nekk ci dexu Ndiawdoune bile moo ko faat. ñaar fukki rey na fee beneen sa méngéej jàpp ko ba mënut ko dafa mujj dee dégg nga fee seen mu jàpp fa ñaari nit dégg nga dem ma gaal gi rey leen dégg ku na wax Samba. dégg mu rey leen dégg foofu dégg dégg mu commencé di jàpp jàpp dabati fi ay gaal fii ñooñu te bàcc dégg ba tey ci bu commencé defaat defaat nodd bi mu def léegi. lii doon loo xamante ne askan wi ñaawlu nañ ko lool ñu ni lépp ñaar fukki at a ngi ni lee ñuy dund jafe-jafe bile. comme que gouvernement bi du ñu dimbali ñun daan ñu dimbali sama bopp suñu bopp barke Serigne Saliou Mbacké maa ngi nii di leen ko xam si naka tey su yóbboo ngeen tëj ma léegi. billaahi wallaahi maa ngi moo maa ren sama laa nekk bii si sama wet na toog ñoom ñaar. ñaata ñaata ñaar danaa leen fetal nag. ma yëgal leen ko yéen gouvernement bi ci boo ngeen dégg ko ba Sëriñ Tuubaa danaa ko fetal. léegi la nga xamante ni askan wi moom la ñaan mooy nañu fexe lu jëm ci wàllu dex gi la ñu gën ko aar bokk na ci mala yi nga xamante ni ñooy ay hippopotame di faat nit ñi ñu mën leen yóbbu ci bërëb yi ñu protégé budul loolu askan wi ñoom laa ñu am yeneen jafe-jafe. dinañ fexe ba nga xam ni sunu kilifa yi dinañ jot mbir mi su ko defee ñu seet ñoom yan jumtukaay la ñuy jël pour mën a aar population yi parce que même su fekkee hippopotame espèce protégée lañu nit ñi quand même war nañ leen aar bu baax a baax a baax. moom Moussa Diop mi génn àdduna nag mi ngi judd ci atum 1939 askan wi ñu fekk file ñu ci bare doon def ay témoignages yu rafet ci moom moom ginnaaw ba mu jullee fajar ba pare dem di nappi si la bii jëye am. Ousseynou Diop keneen ku ñàkk bakkanam Bécaye Cissé lay wuyoo gune la goo xam ne dafa faatu ñu jàpp ne daal ak euh, càggante wala boog dafa am ñu ko njoxt moom moo am ca paj ma jëwriñ bu ñu dénk wàllum euh, wér-gu-yaram di awa may kool sekk xamle na euh, ne bu ñu moytuwulee maanaam lu jëm ci càggante yi wala itam njuumte yi ci paj mi amaana ay daan mën na caa topp awa may kool sekk la ñuy teewlu ay kàddoom Cheikh Tidiane Dione bu rédaction bu télévision Futur Média moo ko taataan xale boo xam ne dafa gaañu euh, mu doon faju ci euh, CTO hôpital Grand Yoff te mu am euh, jàngoro boo xam ni li ci mujjee daal gaañu na loolu daal yëg nañ ko yónnee nañu nag benn inspection parce que loolu mooy suñu liggéey ñun lu ñu dégg nag dinañ yónnee inspection mu xool seet bu baax affaire bi nu mu demee ndax malaat mën na nekk bi mu ñëwee ca bunt ba xëy na. la yëf yi nekkul woon ni mu war nekk ñii ci plâtre bi la wala ci chirurgie bi la loolu yëpp am na di xaar nag résultat yi waaye suñuy responsabilité dinañ ko jël lu mu munti deme ndax xalaat nañ ne liggéey bu rafet moo tax ñu bëgg hôpital yi di dox dox bu baax kon su loolu amee te mu am koo xam ne def na si li mu warul waaye nag ah na ngeen xam ne sooy opérer nit risque nit ko gaañu am na de te loolu kenn mënu si dara. ñu des ba tey ci bërëbu fajukaay yi wax ci leneen muy urgence yi léeg-léeg mu euh, am jafe-jafe fii nag ci ndakaaru ñuy liggéey euh, ci wàll wi bëgg taxaw teem indi saafara ci boobile jafe-jafe ñu ne nag euh, bépp bërëbu fajukaay wala bërëbu fajukaay yu mag yi daañu faje fay ay jumtuwaay taxawal itam kuréel goo xam ne da koy gën a mën a saytu Cheikh Tidiane faju gu ànd ak qualité waaye tamit nit ñi dalalee ñi nga xam ne ñoom ñoo wopp à plan d'amélioration fas nañ ko yéene daal di samp léegi nag mooy bëgg rek wax ne affaire urgence bala ngay wax sax ci fa nga jëm nga wax fa nga ne maanaam won ne am na lu ñu def waaye am na lu des li des nag moo tax ñu bëgg am ay recommandations yoo xam ni wax dëgg yàlla dinañ am comité boo xam ne da koy suivre recommandation yi nag dañoo commencé ci affaire wu naka la ñuy fexe ba nga xam ni euh, dina am benn SAMU la SAMU mooy ki nga xam ne ñooy toppatoo affaire bu urgence fii ci Sénégal SAMU national ñoom ñooy war am numéro boo xam ne am na ko xam am nañu ko xamul numéro boobu nag quinze quinze la. li ñeel ñi nga xamante ne nag seen xel dafa màccul ñooñu tamit am na loo xam ne kii di Eva Marie nee na foofu daal ñu defar leen ko. su malaat bu am boo xam ne xelam dafa wàññeeku ñëw te am tension wala am diabète wala am leneen ñu mën ko toppatoo foofu bañ ko yónni toujours ci ay structures yoo xam ne duñ ko mën a toppatoo parce que malade bi malaat spécial la kon xam nga doo dem rek cardiologie teg ko fa parce que waa cardiologie am na yeneen yu ñu mën ak yu ñu mënul hôpital Thiaroye ñu ngi ci waaye itam dañoo bëgg yeneen ci région yi seen hôpitaux yi gën a yokk ci CRD boobu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy acteur yi nee nañ ñoom fas nañoo liggéey ngir daal daal di dindi bépp jafe-jafe boo xamante ne dafay jóge ci wàllum urgence loolu sax ñu yokk ne ab armoire d'urgence dañ ko fa samp barabu fajukaay nekk fii nii si Ndakaaru Cheikh Tidiane Dione ñu des ba tey ci wàllum euh, paj mi ci euh, diwaanu cees Mbour ak euh, Tivaouane ñiy liggéey ci wàllum wér-gu-yaram ci am ay lijaasa wala ñenn ci ñoom ñu nga woon ci diwaanu cees kaay ab toogaanu ñaxtu la ñoom gannaaw nag ba ñu nimi am mbir ne ñu joxe ay xëy da ca am gannaaw ñaar fukki yoo xam ne dañoo jël seen lépp jagleel ko liggéey ba bi ñu taxawee ba war a séddale dañu leen a fàtte loolee waral seen mer ñu dem ci diwaanu Thiès kaay fekki fa Cheikh Anta Diop saa yu dem ci terrain bi say lateex moo koy gunge gàddu caméra ñoom ñëpp rangu ay morceau yu xonq ci digg région médicale di ay infirmier chef de poste ay sage femme ñoom ñëpp di ay diplômé d'état jóge ci ñett département yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom de ñu ngi yuuxu wàllu nee nañ de li ñu gis lalul xel ndaxte ñaar fukki at ñu nekk ci poste de santé yi di fa liggéey waaye bi recrutement bi jotee nee nañ jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu wér-gu-yaram dañoo recruter ñeneen bàyyi leen lu leen metti la Abdou Karim Ndiaye moom moo yor seen kàddu diplôme àll ko parce que Sénégal amatul àll ak ñi nekk ci gox yi ñëpp ñoo yem parce que ku ci xëy doomu réew mi ngay faj def nañ téeméer ak lu teg ay communautaire kon bu nu demee ba nga xam dina war a jël nan maase la ñëpp jël war a ñu bàyyi ñëpp ñoom sax ne nañ jamono yi sonn nañu lool ba tax ne lii de njàmbat la boo xamante ne yëkkati nañ ko jagleel ko kilifa yi nekk fii ci diwaanu cees bu ci dara saafarawul daanaka poste de santé yëpp daañu dakkal seen liggéey. au niveau régional au début te mën na dem au niveau national parce que syndicat bi boo xam nañ ban la. Ndiogou Sardieye secrétaire général de l'union régionale du Sud-Sas de Thiès. bala ngaa xalaat recrutement politique nga xalaat. li ne di ay technicien sama syndicat la ñu bokk di SUTSAS taxawu leen la ñuy def ba Samba di ca Demba. ñaax nañu kilifa yi. ñu am ci ab dégg-dégg. Cheikh Anta Diop ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci leneen muy wàllum kaaraange gi ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di sàkku ci askan wi ñu gën a dugal seen loxo ci xeex bi Abdoulaye Daouda Diallo ñaawlu na itam yenn ci ay ñaawteef yoo xam ne jamono ji dafa am ñu ko xewal euh, dem ci bërëb yi ni yónnee wala jële xaalis euh, taxaw fa daal di yore seen i ngànnaay nangu koppare ba noppi daw nee na du si ko seetaanati dinañ gën a fexe ba yokk euh, matuwaay yi Assane Ba moo ko taataan. wàllu braquage yi wax dëgg yàlla lu ñuy ñaawlu la parce que quand suñu wargal la pour ñu sécuriser nit yi euh, mais comme euh, ni ngeen ko remarqué yéen ñëpp band yi souvent euh, moyens yu ñu utiliser di son moyens moderne la. dinañu ci adopté mais surtout bu ma ñëwee justement parce di ma tukki woon def nañu benn réunion. Euh, d'urgence de sécurité pour xool encore yan jumtuwaay la ñu war a teg euh, pour euh, gën a disons quand même aar nit yi et de toute façon suñu obligation la on est obligé de tout faire pour encore gën a yokkaat quiétude bi ci population yi yooyu ñoo ngi ci liggéey incha allah ci fan yu new encore ñu defaraat benn dispositif bi nga xam ne dañu gën a mun aar disons citoyens yi li ma ñaan aussi tout simplement mooy que Euh, Sénégal yi quand même euh, ñu am réflexe au moins bu ndaw parce que très souvent nit ku ñu agressé rek moo ñëw di porter plainte mais wane na ne def nañu ko agression waxuñu ñu gis nit ki yore jaasi nga song ko déet kooku kenn laaju ko mais nag aussi nga mun ko signaler quand même à partir juste de téléphone. ñu desandi ak Abdoulaye Daouda Diallo ak législative yu nu dëgmal ñaar fukki fan wala fanweeri fan ci weeru juillet bi nu dëgmal la jëwriñ bi wax na ca ne lu jëm ci caution nag daa daañu fexe euh, ba daal bu ñu romb ñaar fukki millions yi nga xam ne euh, jàppoon nañ ko ci législative yu atum 2012 jëwriñ bi ñu dénk wàllum bi réew mi doon tase ak parti politique yi nga xam ne dañu leen taxawal ci anam ya waree ak ñeneen ñuy liggéey ci wàll wi ci teewaayu Alhassane Ba ay proposition yu bëri nag acteur politique yi fi jot a teew def ko li ko dalee zéro million juróomi million ba jàpp fukki million franc CFA ministre Abdoulaye Daouda Diallo ne dégg na li ñu wax mu fas yéene engagé wu def ay effort ngir bañ a weesu ñaar fukki million franc CFA. dégg naa mbir mi dégg na waxtaan bi noté naa ko incha allah en tout cas dina euh, jéem a gën a motiver waat bu may jël si loolu. mais comme leen ma leen ko waxee en tout cas benn engagement bu ma jëlagum déjà c' est que c' est clair que montant bi de weesu fi nekkoon leneen lii maintenant en fonction des critères yi on va ñu ko euh, apprécier ñu xool ban montant euh, disons la ñu war a fixer étant entendu bëgg mooy quand même qu'il y ait le maximum maanaam de Sénégalais yi ñuy war a participer si élection bi. wax nañu ni dañ doon waxtaan waxtaan bi li mu jur mooy li jëlee ñaar fukki million ba zéro franc moom mooy mooy proposition yi fi génn lii leen proposé daal mooy gën jaa néew 3 euh, millions ne ñu def ko caution gën jaa bare 5 millions ndax jamono dafa soppeeku te développement réew mi dafa am solo démocratie bi également ñëpp dañu ko nawee compte nag waruñu mën a dépasser barre de 5 millions. montant caution bi nag. ñu war koo xam bu gënee yéex ba yéex benn fan ci weeru mars bi ñu dëgmal. montant bi euh, maanaam si loi bi def ñu def ñu def obligation ñu fixe ko maanaam si juróomi weer euh, au plus tard avant ñu def élection bi te élection bi comme que 30 juillet la ñu koy def maanaam juróomi weer bi day commencé à partir du 2 mars donc au plus tard le 1er mars. war nañu mun euh, donc génne arrêté boobu pour ñu fixer montant bi incha allah rabbi ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn parti politique légalement constitué nag ñu woo leen ci ndajëpp minimel téeméer ak ñaar fukk juróom-benn nag demande de convocation borom yi jot ko lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom demande de convocation dellu si waat ci ñi ko jotoon envoyé ndax ñiñ ko jébbaloon xamuñu sax seen adresse fi mu nekk. Alhassane ñu des ba tey ci wàllum politique doxantu ba dëkk bu ñu naan Bambey foofee ji bokk ci parti bi di APR indi lu bees ay bés bu ne euh, dañ cay tànn ay bés yoo xam ne dañuy tase ñaax askan wi ngir ñu mën a bindu ji ba mën a sànni seeni xob ñu waxaale itam lu jëm ci carte d'identité yu bees yooyu lee Ousseynou Kassé la ñuy teewlu ay kàddoo Mohamed Diop ak Talla Samb dogalu groupe Futurs Médias ca Bawol ak li ko wër ñoo ko tànnal mbindu mi ci pour am euh, carte d'identité dafa nekk lu am solo waaye ni muy ni muy doxe nii ah, boo ko xaymaa si dayoo ak solo si nga xamante ne moom la bindu bi war a am nit ñi dafa mel ni xameewuñu ko noonu donc loolu moo tax nag ñu wàcc pour waxtaan ak nit ñi wax leen ñu dem bindu ndax bindu bi lu si nekk dafa bari da nga amaat sa carte d'identité bu bees di nga am aussi sa carte électeur si biir loolu te yeneen information mën na see nekk tey permis bi nga xamante ne mun nañ ko boole si information yooyu ndaxte xarañte bi may na pour loolu mën ci nekk d'ailleurs ñi ngi woo gouvernement bi pour mu xalaat réfléchir ci loolu pour que ñu intégrer l'obtention et la détention du permis de conduire dans ce document administratif donc loolu la moo tax ñu wàcc te du politique dafa nekk tur woo xamante ne ni dañ koy ngénte tey fii ci Bambey waaye nag bu ñu ngéntee ko ba pare doom ji dañ koy may président de la république ak responsable parti yépp ñi nga xam ne ñun moom lañ bokkal nekk ci APR muy ñu tudde républicain pour l'inscription ñuy ñaan responsable politique yëpp bokk APR kenn ku nekk ci sa gox nga organiser week-end républicain pour l'inscription donc ñu tuddee ko noonu ah, ñun ñëpp ñu doxale ko bu ko defee sénégalais yi ñoom ñoo ciy jariñu lu ci ëpp. gox bi nit ñi ñi ngi bindu waaye dafa bari ay mag fii. te tamit dafa am population boo xamante ni dafa ñëw yokk si waat ci Bambey commune Bambey mooy université bi ñu doon ay xale yoo xam ne ña fa nekk ñëpp war nañoo voter war nañoo am ay carte donc maa ngi woo ministre de l'intérieur pour mu dolli ñu beneen commission wala yeneen commission pour que Bambey nit ñi mën a bindu population virtuelle boobu nga xam ne nekk université mën a bindu ndax si loolu la ñu jëm école bi tijji na xale yi ñu ngi jàng. rapport bi Amnesty International xaatim jagleel ko réewum senegal mu jàppaatum 2016 ba 2017 ñëpp bokkuñu ca gis-gis Seydou Gueye yore kàddu gouvernement bi la mu gis rek moom mooy bu lu jëm ci wàllum démocratie jox àq ak yelleefu doom aadama gëdd bi mu euh, euh, soxal euh, la mu gis mooy réewum senegal def na ci ay jéego yu am solo Seydou Gueye ak ibrahimakan Kane. waaye li ma jàpp mooy seen rapport bi lañ ci rotal xëy na sénégalais yëpp gisewuñu ko noonu. Euh, ci tënk rek war nañu mën a jàpp ni ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama jéego yi moom du dakk mukk parce que bés bu ne am na loo ci war a conquérir euh, may fàttali ni ci wàllu dox àq ak yelleefu doomi aadama Sénégal am na lu bare lu mu ci def moo xam ci wàllu information citoyen moo xam ci yokk ak xam ak yelleef ci moomeel li may wax léegi ci mbirum titre foncier yi firnde na ko lañ fi def 20 mars ci wàllu moomeel bi Sénégal doomu Sénégal di moom euh, gàncax gi ak meññeef yi jóge ci suuf bokk na ci li koy yokk euh, lañu ko indil it mu mën a dem saisir conseil constitutionnel ci ay exception bu fekkente ni am na lu muy def yooyu yëpp ay jéego la yu ñu dox ci wàllu liberté de manifesté ak liberté d'expression jàpp naa ni Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ni ñi lu leen neex wax te dara du leen ci fekk euh, li may jàpp rek mooy démocratie ñu ngi koy natt ci coow li ni mu yaatoo ci réew ndaxte dictature nañ koy natte mooy noppi gi na mu yaatoo ci loolu Seydou Gueye junju la ñu fas yéene faram muy bépp askan bu dëkk Médina Grand Dakar Grand Yoff wala nga yeewoo gox bu ñu naan pikin bu fekkee dañu laa joxoon ay kayit ni la mën ngaa dëkk waaye moomoo ko dañu laa abal abal googe mën naa mujjee ci kayitu kër dogal la bu tukkee ca palais de la République loolu nag askanu lébu fi ci Ndakaar wax li ko war a ko Ibrahima Kane gàddu euh, micro ànd ak Ababacar Camara mu yore caméra bi ñu defal ñu ci ab soppi lépp luy permis d'occuper def ko ay titre foncier lu ni mel njiitu réew mi moom moo ko sàkku mu di ab décision boo xamante ne nag ñu bëri rafetlu dañ ko liñ ci jublu di moderniser capitale bu Sénégal. donc kooku dañ koy rafetlu parce que dina indi kaaraange ci moomeelu nit ñi dina leen gën a yokk seen kattan parce que ku moom sa kayitu kër foog naa ne booy waxaat koo xam ni mooy joxe xaalis pour nga mën a am loo def ci projet am nga foo teg sa tànk am nga garantie. donc yooyu yëpp nag bu ñu defee titre foncier di nga mën a jël titre foncier bi dem banque ñu liggéey Dakar. permis d'occuper boo ko yóbboo banque duñ ko jël te xam nga ti leen tey moo gën a jege euh, fële euh, VDN tey boo ko fa defoon ay bureau ay immeuble 30 étages mu baax. kon man jàpp naa li président bi lu mu def baax na mais gën naa baax na bi nga xam ne daf dem ci région yi. bu weesoo chef lieu de région yi ñi mu soxal ñu mën cee jàpp Médina Grand Dakar Grand Yoff Pikine lu ni mel nag askanu léebu bi dañ ko rafetlu bu baax a baax xamle sax ne dinañ ci dugal seen loxo. ndax yooyu yëpp 1976 bi ñu jëlee loi sur le domaine national la ñu waroon dakkal ci la ñu dakkal permis d'occuper ak lu koy niru. wante nag ñi ko amoon ba tey ñu mu ngi seen loxo parce que mun na jël décision bi mais administration bi liggéey bu metti la lii bu ñu def enquête yi teey ci yi nga xam ne ay nit a ko moom ñu doon na ko boo demee boo demee benn tali am na fa dëkku lébu la boo demee ñaari tali am na fa dëkku lébu la boo demee Pikine am na fa dëkku lébu la boo demee Géejawaay am na fa lébu lañ fa tuxal waaye fi yi ngay déggee fii la ñu jógee ay mbot yëpp fii la ñu jógee Parcelles Assainies Cambérène ngir nag ñu indi coppite yooyu amal lii di titre foncier yi ay mesures d'accompagnement prévoir nañ ko. mooy mbir mi war nañ koo def te kenn du ci génne dërëm. ci services fiscaux yëpp fi nga xam ne ñooy toppatoo mbiru suuf. ñu amal fa ay guichet unique yoo xam ni boo ñëwee benn nit rek ngay waxal mu yor mbir mi yëpp toppatoo ko parce que administration général dafa bare bërëb yooyu dugg dafa bare fooy jaar dafa bare ñooy waxal pour mbir sotti mu ne léegi nañ ko def benn guichet unique boo xam ne boo ñëwee la ngay seet la ngay ci toppatoo yëpp ma nga fa. ci loolu nag njiitu réew mi di sàkku ci yorin gi ñu def ci li ñu duppee transparence ndaxte mbirum suuf la. a kan boobee dogal itam askanu Tëngéej rafetlu nañ ko waaye waaye askan dafa am lu luñ ca yokk ne ñu njiitu réew mu Sénégal waru caayam joxe kayitu kër waaye itam lépp luy jafe-jafe mu aju ci wàllum suuf war leen caa jaarale ba indi ci ay saafara Ousseynou Thiam la ñuy fekki fële ci diwaanu Tëngéej mu ànd ak Pira Diagne defal ñu gëstu. jóge ci ay permis d'occuper def ko ay titre foncier dogal bu ni mel njiitu réew mi jël ko nag rafetlu nañ ko ci diwaanu Tëngéej waaye askan wi jàpp na ne war nañoo régler nag coowal suuf yu metti yi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko fii. parce que dañoo nekk ñoo xam ne ay doomu lébu yu bokk ci biir askanu Sénégal amoon ay suuf. ba ko tubaab bi bindee ñu moom ko ba nekkee ni suñuy famille yëpp dañu am ay problème parce que ay agent ñoo jël suñuy kayit ànd ak ñoo xam ne moomuñu moomaale ñu ñu bind leen ay kayit di jël kayiti maam yi jàmbur di ko bind di ko falsifié di ko toxal di ko jël ma yaakaar ne bu dossier boobu génnee ma yaakaar ne bu ñu koy laa war a wax ne dina nekk ñu xool li nga xam ne mu nekk ci taatum daal di nekk coow ñu war a régler d' abord. est-ce que président jëloon na conclusion bi nga xam ne moom la commission nationale foncière bi loon def ci enquête yi mu doon def parce que bés bu nekk am na loo xam ne yee nga of naag yee nga tribunal que génnewuñu coow loolu génnaguñu ko ci lu leer mën a wax ne dina nekk. gis-gis bi ni mel nag la ñu gis ci ñii di écologistes yi jàpp nag am na barab yoo xam ni joxe nañ ko ba pare nguur gi war na koo protéger. en tant que écolo mooy les zones inondables comme le technopole comme les zones inondables kenn waru ko titrer dañ ko war a préserver donc Euh, euh, le chef de l'État il est en de marquer beaucoup d'actes positif loo xam ne vraiment Sénégal yi bari soxla nañ ko donc loolu ñun ànd nañ ci mais avant loolu dafa war a gérer les conflits qui existent dans les communes partout xam nga à Tivaouane Peulh à partout xam nga sont des exemples euh, à Rufisque à à des conflits qu'on doit régler d'abord moom la ñu war a defar ba pare doogo jël décision yooyu. mu doon askan woo xam ne nag ñaan nañ autorité yi ñu jël matukaay yépp ngir nag wane ay garantie ngir mesure boobu ñu jël nag ñu mën koo amal ci anam yu mucc ay pë Amadou Thiam euh, ñu koy sant di ko gërëm ñu wax ci leneen ak maître Amadou Sall mi ñu dénkoon ay jamono lu yom lu aju ci wàllu yoon ak yoonal euh, ci rawatina ci jamonoy maître Abdoulaye Wade la mu xamle mooy euh, li ko dalee ñetti fan ci weeru avril atum 2017 njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall dootul nekkati njiitu réew mi ndaxte juróomi at yi ko sartu réew mi mayoon loolee itam fa la war yam ndaxte la mu gis moom mooy daal fi mu ne nii moom la doxal kàddu yi nag mu ko yëkk yëkkatee ci diwaanu Saloum ci teewaayu Ibrahima Diamé. l'ancien ministre de la justice que je suis que man en tant que ministre de la justice bi ma nekkoon ak avocat bi ma nekk pendant trente cinq ans lenn rek lay wax ma ne ñetti fan ci weeru avril bii di ñëw Macky Sall dootul doon euh, jiitu réewum Sénégal te su boobaa nag war na amal ay élection yu bees te loolu dafa war a leer te ñeenti fan nag ci weeru avril bi ba tey euh, Macky Sall bu jógewulee ci boppu réew mi euh, dina métti parce que xam ngeen ko constitution bu bees bi mu jéebal askan wi ci référendum bi daa jëlee mandat bi kon ci juróom at andi ci juróomi at. donc mandat Macky Sall tey jëlee juróomi at la ndax bu bëggoon mandat bi des juróom-ñaari at waroon na au moins dugal ci biir constitution bi ay disposition transitoire yu bees yu wax ni kon constitution bu bees bi du appliqué wu ci maanaam bi mais puisque defu ko day daal di rek wu ci kawam kon à partir du 3 avril 2017 dootul doon suñu président te ñun te su boobaa dootuñu mën a yox euh, benn dogal bu ñu dégg. il n'a absolument gannaaw loolee ñu jeexalee ak euh, aada ak euh, cosaan Alpha Sow kàngam la ci wàllum argile ñi ko xamle rek di ñi mu bokk liggéey bi la ñu xam euh, nee ñu boroom xam-xam la itam ku yéwén la ci li muy def ñu daal di koy sargal jaarale ko ci ab exposition ci teewaayu ay Aïssatou Paye moom Aïssatou Paye la ñu denk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ci rédaction bu télévision Futur Média. ban nekk li nga xamante ne moom la taamu woon ci liggéeyam mu ci def lu am solo. Alpha Sow nag dem na waaye bàyyi na ci ginnaawam liggéey boo xamante ne bu jaax yoon la mës nekk ay njoñam di ko sargal. Alpha Sow nekkoon artiste boo xam ne bu xarañ la woon. Euh, mu nekkoon koo xam ne kii wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu woon nañu liggéeyam yàlla def mu jógee fii naataangoom yëpp daal di dajaloo ne dañu koy defal benn hommage. man tey sama xool dafa dafa fees mais euh, am naa afiya ndax. li nekkoon sama xol def naa ko li ñuy wane liggéeyam ni euh, mbégte la si ñun ndax dañuy am na lu ñuy jéem a wane xëy na nit ak ay pexeem la xëy na mét mëtadi dana si nekk mais yéene ji yéene bu set la. mu mel ne nag xam-xamam ak lépp loo xamante ne daf ko doon def si liggéeyam daf ko yàgg bokk ak i njoñam. famille ñëw nañu artistes yi ñëpp daje nañu fi. ak ñëpp ñi nga xam ne ñi xaritu art art yi la ñëw nañu donc euh, loolu moo doon euh, solo bi mu nekk euh, artiste boo xam ne bii vraiment liggéeyam yemul rek ci Sénégal dem na à l'extérieur parce que foo tukki di nga gis benn objet boo xam ne bi dinañ la wax ne la Alpha Sow moom moo ko def. juddu nag ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru octobre Alpha Sow bàyyi patrimoine bu mag fii ci Sénégal ba taxoon ñu koy woowee orfèvre de l'archive njàmbaar dëgg moom euh, Alpha Sow looloo tax euh, ñu naan suuf du lekk jëf mbokk yi mu ngoog fii la ñem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci safoo bi ak kóolute bi si see noppi na ngir tegtal leen xibaar yi ci français desandi leen ak sunuy programme ñu fanaan jàmm.